tere bi ki itam aw yoon la xam da ko sos bind na ko leeral na ko lépp lu tere bi war def wax na ko moo xam tere bi juddu doo a nekk xale ak ki nekk mag kenn ku ne la nga war def wax na la ko aw yoon la woo xam ni moom ci tariqal muridiya da ko sos te mu tegu ci ngëm yàlla muy iman islam ihsan ngëm yàlla ak jëfee jëf yi ndigali suñu borom yi ak rafetal ko te lépp sukkandiku ci xam-xam ak jëfe ak jaamu yàlla ak ay teggin yu rafet loolu lépp nag bu àndee mooy tudd sharia al mutahara ak sunnal munazaha yoon la woo xam ni mbir mu ne day seet la ci gën a digg doomu rek mu jël ko moo xam ak jaamu yàlla la walla jëf wala diine wala àdduna wala fiq wala tasawuf lu mën di doon day la digg doomu rek lay jël du ëppal du yeesal ëppal ak yeesal baaxul am ñoo xam ni diine ji dañ koy jëlee dañ koy jëkk ki foogandoo lépp moo tax dañuy xëy suba bàyyindoo lépp yonte bi dara xam ne lan yusadd hada diina ahadun illa galabahu diine boo xëy suba jëlandoo lépp da nga jëkk ki bàyyi fale moo tax yoonu murid day yar nit ñi ci ñu jël ndànk naka mbir mi def ci tey ba keroog nga ci sori yoon la woo xam ni dundug ruux mi ngi ci waaye dundug matériel mi ngi ci mooy àdduna ak alaxira lañ boole day ñaax nit ñi toujours ci ñuy booloo ci lépp moo xam ci jaamu yàlla la wala ci liggéey walla ci wàllu dimbalante di ñaax nit ñi itam ci ñuy jéggalante ak bëggante ak seen lépp ñu di ko nose tey diisoo ngir ñu mën a am société boo xam ni day dal am sécurité ñëpp jàppante ay valeur yu dimbalante nit ku ne sa sa morom gën a sa bopp nekk ci société boobu te li ñuy wax égoïsme ak jiital sa bëgg-bëggu bopp ak sa intérêt bopp loolu doxoo fa ak bopp sa bopp yoon la woo xam daal day defal jikko di yar nit ci jëmmam ak ci rooxam ak léppam di xamal nit ki ci bokk waxtu ne mu war a taxook ay jikko yu tedd ak ay teggin ak comportement bu mucc ayib te it làmboo yërmande ak ñeewante ak dëggu ak wóolu te wóor loola waay dénk nga sàmm ko ba jébbal ko nam la ko dénkee woon ak ak ci jëf yépp ak jëflante yi yoon la woo xam ni dafa bañ violence ak lépp luy ak tar ak mettital dafa bañee lépp lu yàqu diggante moo xam jëw la wala wor wuruj wala wor wala rambaaj wala yooyu yëpp sëñ bi ko daa aaye di ko moytuloo murid yi lépp loo xam ne mën naa yàq seetlu dund gi dana wax nañ ko moytu rawatina nag loo xam ne day indi ay xëccoo ak xuloo wala luy lor nit ñi yoon loo xam ni day bëgg nit ki ci bokk lu muy def mu xarañe ko def ko ci anam nga gën a mucc ci temps bi gën a néew yoon loo xam ni day jàngal nit ki mu yëg doomu aadama yittewoo doomu aadama itam jumtukaay yi itam ñu di ko sàmm yoon la woo xam ni jéggalante lay digle ak labirante ci ku juum ak it képp ku juum nga nangu ne juum nga yoon la woo xam ni dafa bëgg lépp jëflante bépp ñu teg ko ci bëggante ak ñeewante ak def ndànk yoon woo xam ne liggéey lay santaane comme ni mu santaane jaamu yàlla ci liggéey yépp nag moo xam mbay la wala liggéeyu loxo wala commerce wala yépp te lépp nag ñu sàmmante teg eh, àtte sharia yoon la woo xam daal li ko tax a jóg mooy defar ab société boo xam ni société bi islam lay doon koo xam ni ay principe dëgg ak justice moo koy lal te jàmm dafay ne ak sécurité tey it dund neex xéewal am fa ci wàll yépp ñu mën a texe àdduna ak alaxira loolu ci gàttal mooy yoon wi